cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi safoo site internet bi di Rewmi TV di gën fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy door rek foofa ca diwaan bu Kébémer niki école ba nak niki tey jii rek daal di nañ leen délogé maanaam dal élèves ya ñëpp rek génne nañ leen daal di fay taal pana li ko waral nak dul lenn rek lu dul élection yi nga xamante ne kii di Macky Sall rek daal di na koy daqandi mbir mu nu mel nag waral askan wi meex bu fut rek daal di taal fa ay pana ba noppi nag génne élèves ba jamono ji ñuy wax nekkatul ci yooyu les classes ba tey rek ci report élection yi nga xamante ne rek daal dinañ koy def lu ëpp cent cinquante manifestants rek police daal dinañ leen di teg loxo ñeel li nga ne rek moom mooy seen manifestation yi nga xamante ne rek doon nañ ko def ci biir réew mi wërngal këpp niki ba nag ni ñoom yooyu nag jamono ji dañuy sàkku rek ci kii di président de la république mu daal di respecté calendrier électoral bi nga xamante ne rek daal dina koy joxe ginnaaw discours bi nga xamante ne rek la def niki samedi yemoo nag jamono ji ñi nga xamante ne ñoom ñooy police yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy manifestant yi nag am ab jàmmarloo bu métti métti seen diggante jamono ji ñuy wax lu toll ci cent cinquante et un nag daal dinañ leen teg loxo cent cinquante et un manifestant ci biir réew mi wërngal këpp beeg manifestation yi ba mu dooree ba ndege ni ñu fàttali leen nag ëpp juróom fukk ak ñaar manifestant jamono ji nag daal dinañ leen jàpp rek niki dimanche lu toll ci quatre-vingt-dix-neuf ñoom tamit nag daal dinañ leen tegaat loxo niki démb ci altine ji ginnaaw bi ñu voté boobu les projets de loi ñeel nag lii di fomm élection yi ginnaaw bu ñu ko jàppoon nag ni ki ñaar fukki fan ak juróom euh, ci weeru février 2024 bu ñu sukkandikoo ba tey su natango yi Seneweb ci ab source boo xamante ne rek moom moo leen ko euh, daal di xamle jërë ngeen jëf ci teewul bi euh, bu leen fàttee abonné bës cloche de notification ngir amaat yeneen info